mbokk yi ñu ngi ziyaare kenn ku nekk di ñëwaat ak yéen ci téere bi ñu tuddee almanzumatu albayquniya e, jàngoon nañ lan mooy xadis bu wér ak lan mooy xadisul xasan ak lan mooy xadis bu lot man nga wax ne daal ci tënk xadis ñetti xaaj la bu wér ak boo xam ne xasan la bu lot xadis bu wér nag dañoo am njort bu dëgër ne yonentoo ko wax waaye mënuñoo dogu ne yonentoo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mooy mu nekk loo xam ne mutawaatir la mbooloo jëlee ko ci mbooloo ñu kan amatul benn sikk xadis xasan it noonu la xadis bu la tiit mënuñoo dogu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxut ko waaye nañ gisee xadis bi fam jaar tax na ñu am njortu dëgër ne lii yonentu waxut ko dëgg-dëgg mën naa moo ko wax xadis mawdu it mooy dañoo gis mandarga yu gën dëgër yu wane ne daal dëgg-dëgg eh, dëgg-dëgg eh, lii yonentu ko ndax doye dégg yoon wi mu jaar tax ñu ne xadis bii dañ koo fenti waaye amaana sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax lu may loo xam ne wóor nañu ne yonent waxut ko ne ki nga ko fenti wala ne moom moo ko sos loolu moom dañuy xam ne dañuy dogg ne luñ fenti la tey ñu ngi ci alxadis almarfon tey lañuy jàng muy xadis marfon mu ne wamaa lépp loo xam ne udi fa laaf nañ ko lin nabi jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al mooy xadisul marfon bépp xadis bu xadis boo xam ne dañ na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax wala moo ko jëf wala dañ koo jëf ci boppam dañ koo jëf ci kanamam mu nangu ko muy melal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo di marfon wama lépp loo xam ne laaf nañ ko li taabiin ci taabiin yi mooy koo xam ne ni gisul yonent bi dajewut ak moom waaye nag gis na ab saxaabi kooku mooy taabiin بيبقى حديث بوقع الذي التابعين وكوخ هم المقطوع موي حديث المقطوع دنجا كن مرفوع موي حديث بن مرلاف شيخ النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع موي حديث بوقع من يجود شيخ النبي واي الذي تابعين برغليم الموقوف موي حديث بيغا خامني سي صحابه بي ليم انا واخي صحابه لا ولا جيفهم ولي دي منون واي هيغو تي يونتي بي كروما لب لو خامني اودي فلاف نانكو لي نبي با تي يونتي بي المرفوع ودي حديث المرفوع وما لب لو خامني لاف نانكو لي تابعين تي تابعي هو المقطوع حديث المقطوع taalifkat bi jàngal nañu tey ñaari xeetu xadis muy marfon ak maqton xadis boo xoolee ci kañ ko wéet dafay séddale ko ñetti xaaj marfon ak mawquuf ak maqton moom nag tuddul fii waaye dana ko tudd ci kanam maanaam lépp luñ laaf ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolay marfon lépp laaf ci saxaaba moo di mawquuf lépp loo xam ni nag ku ku dul saxaaba moo ko wax kooku mooy maqton maqton bokkut ak munqati munqati mooy ku mooy sanad bu dagg maanaam di hadiis am ku ci dagg ni que numéro un jëlee ko si numéro trois ma maqton moom mooy loo xam ne waxi taabiin la wala ku gën a suufe kon buñ ne li yonentoo ko wax wala moo ko jëf wala ñu jëf ko ci kanamam mu nangu kooku marfon lañ koy tuddee ni ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf na innamal amalu bi niyaat wa innama li kulli imrin ma nawa jëf yëpp ci yéen la aju ci yéen lay tabaxu ku nekk la nga yéen lañ lay fay xadis boobu naan marfon ndax wax ji waxu yonentu la du waxu saxaaba du waxu taabi buñ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na masa ay sangam loolu jëfi yonentu la kon xadis boobu marfon la ndax jëfi yonentu la yonent bi laaj na ab jéebéer jaam bu jigéen ne ko ana yàlla mu ne mu ngi ci mu bàyyi ko noonu kon loolu taqrir la luñ def ci kanam yonent bi luñ wax ci kanam yonent bi sallallahu alayhi mu nangu ko loolu moo di marfon <clears throat> foofu nag euh, laaj dana ci juddoo ndax lépp luñ def ci jamono yonent bi wala ñuy wax ko ci jamono yonent rek marfon la tontu bu mooy su fekkee yonentu xam na loolu te noppi ca ñu def ko ci kanamam ci jamonoom mu xam ko te noppi ca wala ñu def ko ci jamonoom ñu wax ko ci jamonoom mu xam ko te noppi loolu moom marfon la ndax moom moo ko saxal su fekkee xamul ko nag loolu du marfon ndax laafuñ ko ci yonent bi waaye nag lay la wóor ndax yàlla xam na ko noppi ca gi ko yàlla xam noppi mooy tax ñu ne mën nañ koo layee mën nañ koo jëfandikoo waaye duñ ko tuddee hadisu marfu ndax loolu laafuñ ko ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam saxaaba ko def rek wala koo xam ne ne si jamono yonent bi la yonentu yëgut ko kon bu ko yëgee loolu marfon la bu ko yëgul nag du marfon waaye mën nañ koo layee ndax yàlla xam ngi ko yàlla xam si jamono boobu mu naan wàcce alquran eh, ñaawlu ko te ñaawluwut ko te yàlla du du nangul lu bon lu may leeral na lii lu bon la saxaaba yi it ridwanullahi alim dañ doon layee ne daan nañ def dara yàlla xam ko te waxuñu dara kon loolu dagan na jaabir daan na wax ne daan nañ dasal dasal mooy jot ak jaam boo war a jot banneex tuur ko si suuf nee na daan nañ dasal te alquran a ngi wàcc maanaam bu ñaawoon alquran dana leeral na lii ñaaw na kon lépp luñ def ci jamono moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu defee bi xamu ko waaye yàlla ñaawlu wut ko rek dañuy jàpp ne lu dagan la ndax alquran mu ngi wàcc ci jamono yonent bi sallallahu alayhi su ñuy def dara muy lu ñaaw foofu alquran ñaawlu ko comme ni ko jaabir waxee daan nañ desal te alquran nañ wàcc maanaam bu ñaawoon kon yàlla dana ko tere ci téeram bi wala mu wax yu yonentoom ndax yàlla du bàyyi saxaaba yi ne nekkee lu ñaaw lu may leeral la <clears throat> المهم ورنا يا الله دبي صحابي يدفل نعاو لما يلرن لكم ويلين وقت القرآن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول نيني في نيني وعيد نبوت يا الله نخي الله نعم عندك يوم بني في يدفل وقم نني يا الله قرم متكو نيني نبوت نيني وعيد في نيو نبو يا الله دنگا نيني نخمي لنيو فنانول يا الله في مت دنگا بيا الله Eh, yàlla yàlla xam na ko waaye weer na leen dégg nga di leen bët nañ mbir bëtu nañ ba nit ñi gisuñ leen nit ñi xamuñ ko waaye ba nga xamee ne yàlla gërëmut ko yàlla def koo ñaawlu wane ne lañ nekkee gërëmut ko kon loolu dafay wax ne lu luñ def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yàlla ñaawluwul ko rek lay la waaye duñ ko tuddee marfon ndax askanewuñ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax duñ ko marfon mooy lu ñu askane yonent bi lu tax marfon ñu tuddee ko marfon ndax mooy martaba bi gën a kawe ci martabay xadis xadis ba ci gën a kawe mooy boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax dëgg la nag lu ñu askane ci yàlla moom moo gën a waaye lu ñu askane ci yonent bi waaye lu ñu askane ci yàlla am na beneen tur mooy alxadisu qudsi wala alxadisu ilahi wala alxadisu arabbaani ndax moom yàlla suñ borom subhanahu wa taala euh, mooy wax wax jooju loolu ci yàlla lañ ko askanee kooku duñ ko tuddee marfon marfon mooy lañ askane ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam askane yonent bi moo gën a kawe ci lañ askane mindeef ma lañ askane yàlla moom yàlla du mindeef lañ askane mindeef nag la ci gën a kawe mooy lañ askane yonent bi moo tax lañ askane yonent bi ci wax wala si jëf wala si saxal loolu la ñuy tuddee al marfon dégg amma maqton mooy lañ askane tabi'i wala ku nekk ci gannaaw tabi'i manam loo xam ne ka wax du sahabi du yonantu du sahabi loolu moo di maqton loolu la ko borom xam-xam hadith yi tuddee lu tax ñu tuddee ko maqton parce que dara jaam dafa gën a suufe marfon gën a suufe mawquuf marfon mooy lu yonantu wax mawquuf mooy lu saxaabu wax maqton nag mooy loo xam ne ka ko wax ab tabi'i la rek wala du sax tabi'i maanaam mooy loo xam ne ka ko wax du yonantu du sahaba kon moo leen gën a suufe moo tax ñu ko maqton parce que dafa dagg darajaam dafa dagg walis darajaay ñële maanaam darajaam moo gën a suufe darajaay ñële ci misaal lépp loo xam ne xasanul basari moo ko wax dañ naan lii asarun maqtuun ndax xasanul basari du saxaaba du yonantu amma lañ laaf ci saxaaba moom ñaari xaaj la li saxaaba wax benn mu yore atteeb marfon su boobaa loolu lay borom xam-xam yi di tuddee al marfu xukman loo xam ne yorul xàtteeb marfu ñu tuddee ko mawquuf kon li saxaabu wax léeg-léegi ñu tuddee ko al marfu waaye dañ ci teg xukman ci atte ndax atteeb marfu la yore dafa mel ni yonentoo ko wax ci misaal asaar yi nga xam ne ñu ngi koy jëlee ci Aboubacar ak Omar wala kenn ci saxaaba yi mawquuf lañ koy tuddee <clears throat> mawquuf mooy liñ taxawal ci saxaaba bi pourtant la la yonent sallallahu alayhi wasallam waxee mën nañ ko tuddee mawquuf ndax wax jooju dañ ko taxawal ci yonent bi sallallahu waaye lii mooy jëfandikoo ñooñ xam-xam borom xam-xami xadis yi te ñoom seeni mustalahaat maanaam nañ lañ jublu seen baat yi loolu bokkut ak yow la ngay firi ci loxo noonu rek nga ko mën a firi lañ jublu seen baat yi dégg saxaaba nag wax naa ne am na loo xam ne bu ko waxee marfon lañ koy tuddee waaye xukkuman ci atte mooy lépp loo xam wax nañ ko ñoom saxaaba yi te xel amul ci place góorgóorlu xiyaas ba génnee masala amul ci place maanaam lépp loo xam wax nañ ko te xel day jàpp ne lii kat mënuñ koo jëlee lu mooy ci charia loolu al marfon xukkuman lañ koy tuddee lépp lu saxaaba wax te xel xam ne kat ci yonent rek lañ ko war a mën Hmm, loolu marfu xukuma lañ koy tuddee ndax loolu dafay mel ni yonantoo ko wax niki saxaaba nettali mbir yowmal qiyaamati wala mbiri xaybu kumpa dañ naan lii saxaaba bi nettali marfuun xukuman atteem marfu la dafa mel ni yonantoo ko wax ndax xam nga ne mbir yowmal qiyaamati wala mbiru xaybu nit mënul góorgóorlu ba génne si dara wala ba xam ci dara kon su ko waxee rek dañ naan si yonent bi la ko jëlee loolu marfon xukuman dafa mel ni yonantoo ko wax di la xóorul neex yonantoo ko wax waaye dañ koy jàppee rek comme wax yonantu mu yore atteb naka noonu saxaaba bu defoon jaamu yàlla goo xam ni gisuñ ko si sunna saxaaba def ko dañ naan lii marfon xukuman jaamu yàlla googu yonantoo ko def ci atte ndax lan ndax jaamu yàlla kenn du tëb rek mm, euh, defee ko nu la neexee saxaaba bu jaamu yàlla rek dañu xam ne loolu si yonantu la ko jëlee ni ki alin ibn abi talib radiallahu anhu juli na ci juli muuru weer rakk bu nekk rukon si ñetti yoon te lañ gis si sunna mooy rakk bu nekk ñaari yoon lañ ci rukon eh, rakk bu nekk nga rukon si ñetti yoon nag xam nga ne loolu alin imam alin radiallahu anhu du xalaat xalaatu boppam rek def ko loolu eh, dañuy jàpp ne lii moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ko mën a jëlee ndax lii mu rakk yi du li du li nit di góorgóorlu ba indi ci àtte waaye lii mu rakk yi moom dañuy gis rek nu ko alquran waxee wala nu ko sunna waxee wala nu ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam doon defee ñu defee ko noonu kon ali ibn abi talib bu jullee ñetti rukon ci rakk bu nekk ci dégg nga julli muurug weer muurug jant dañu xam ne loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la ko mën a jëlee loolu marfoon xukman la naka noonu saxaaba bu waxee bokk na ci sunna lii maanaam lii ci sunna la bokk loolu marfoon xukman la ndax saxaabi <clears throat> bu waxee ne lii ci sunna la bokk dañuy jàpp ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bëgg a wax ni ki ibn abbas radiallahu anhuma ba mu jàngee fatiha ci julli néew daf ko biral wax ko ci kaw ne ngir ngeen xam ne jàng fatiha ci julli new sunna la wala boo ngir ñu xam ne jàng fatiha ci julli néew la moo tax mu wax ko ci kaw hmm, kon jàng euh, bu waxee ne sunna la dañuy jàpp ne sunna yonent bi la yonent daf ko daan def <clears throat> naka noonu it anas bun malik wax na ne bokk na si sunna boo takkee jànq euh, fekk yaa ngi ay jeeg nga fanaanoog jànq bi juróom-ñaari fan door a jox jeeg yi seen aye loolu dañuy xam ne si sunna yonente bi sallallahu la la wax maanaam loolu marfu xukuman la dégg nga saar yu mel nii daal duñ ko laaf ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye dañ naan atteeb laaf ci yonente bi la am dafa mel ni rek yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax wax jooju ndax saxaaba yi buñ ne lee si sunna la rek dañuy jàpp ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci namm dégg nga saxaaba bu la waxoon ci mbiru aljana wala safara dag naa lii marfuun xukuman xadis marfuun la dégg nga ndax saxaaba mënul xam la nekk aljana ak la nekk safara lu may mu jëlee ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon saxaaba bu waxee wax joo xam ne nii xel mënu cee liggéey waaye lu di gëstu mënu cee liggéey loo xam ne lu ñu mën a jëlee ci yonantu rek la mën a doon loolu dañuy jàpp ne marfoon xukman yonantoo ko wax waaye nag ci sartaab saxaabu boobu wax loolu bu nekk koo xam ne dafay jëlee ci banu israil bu fekkee saxaaba buy jëlee ci banu israil boo waxee dara dañuy loo xam ne dégg nga xel mënu cee xalaat dañuy jàpp ne lii daf koo jëlee ci téere banu Israël mooy yoxor yi duñ ko nangu duñ jàpp ne yonentoo ko wax ndax man naa am ci ñooñu la ko jëlee ni ki Abdullah ibn Omar ibn Aas daan na jëlee ci banu Israël ndax ci xare Yarmuk am na téere yu bari ci téere ahlu kitaab yi yi nga xam ne waa Ruum banañ ko fa moom mu jël ko di ci liir daan na ci nettali kon bu nettalee loo xam ne nii lii xel mënu cee liggéey ci <clears throat> mm, Eh, yonent rek lañ ko mën a jëlee duñ ko nangu duñ jàpp ne ci yonentu lañ ko jëlee la ko jëlee ndax mën naa am ci téereem yooyu la ko jële téere banu Israayil yooyu ndax foofu it lu ne dañ ko fay nettali dégg eh, nettali nag jëlee ci banu Israayil yonentu sallallahu alayhi moo ci maye ndigal daan nañ ko def ci jamono Umar ibn eh, moo tax saxaaba yi daan ko def waaye bépp saxaaba boo xam ne wóor nañu ne day nettali jëlee si banu Israayil bu nettalee wax joo xam ne xel amul ci place gëstu ci xam-xam amul ci place ci ijtihaad amul ci place dañ naan loolu du marfu xukuman ndax ma naam ci Banu Israayil ko jëlee dégg nga am maa loo xam ne saxaaba moo ko wax muy mbiru boppam te góor lu saxaaba boobu mën na ci am maanaam waxi xam-xam la rek comme mu dénkaane wala mu wax xikmatu ak yu demee noonu loolu moom dañ naan xadis boobu mawquuf la ni ki Ali ibn Abi Talib wax gi mu wax ne na ngeen waxtaanal nit ñu luñ mën a dégg loolu kay ku nekk mën na ko wax loolu nit mën na ko wax déggee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen waxtaanal nit ñi luñ mën a dégg bu leen leen wax yoo xam ne ni seen xel yeggu fa loolu ku nekk mën na ko wax loolu lañ naan xadis bi mawquuf la ay mawquuf ala al imam Ali ibn Abi Talib hadis bi ci imam Ali ibn Abi Talib la yem maanaam waxi saxaaba la waaye du waxi yonent loolu moom mawquuf la hadis nag bu dee marfon la mën nañ koo layee bu dee dafa yore xukumu rafi maanaam saxaaba ko wax gaa wala mu jëf ko waaye dañ koy yéege ci yonent bi hadis boobu it mën nañ koo layee waaye bépp hadis buñ laaf ci saxaaba te yorut atteeb marfon kooku borom xam-xam yi wutee nañ ci mën nañ koo layee wala déet ni ki waxi saxaaba rek ndax lay la bu ñu mën a sukkandiku ne saxaaba wax na nangam kon loolu lañu war a def wala du lay kooku borom xam-xam yi wutee nañ ci am na ñu ne waxi saxaaba bu même bu fekkee àtte marfon la yore moom maanaam yonentu lañ koy laa laafe loolu moom lay la waaye waxi saxaaba am na ñu ne bu fekkee du e, marfon waxam rek la loolu am na ñu ne lay waaye ci charte sarta bu mu wuteeg benn texte alquran wala hadis bu ko hadis hadis bu wér maanaam wax yonent bu wér bu mu wuteeg texte yi ci sarta bu mu wuteeg beneen saxaaba bu wuteeg euh, texte dañuy jël texte ba ba fa waxu saxaaba bu wuteeg beneen saxaaba ñu xool ki waxam gën a lëng ci saxaaba yooyu ñu jël ko dégg nga waaye saxaaba boobu mu nekk koo xam ne dafay jële ci banu Israël bu dee dafay jëlee ci yahood yi téere yahood yi soo baa waxam duñ ko jàppee lay dégg ndax mën naa am foofu la ko jëlee te ñooñu seen wax dañ ciy taxaw duñ dëggal duñ weddi mooy waxu banu Israël lu mooy ñaam taxi bu ko weddi ñu weddi ko wala taxi bu ko dëggal ñu dëggal naka noonu it am na nañu wax ne waxi saxaabi du lay ndax saxaaba nit la rek day góorgóorlu léeg-léeg mu wax loo xam ne jub jub na léeg-léeg mu juum am na ñu wax it ne saxaaba bi daal bu dee Abu Bakar la wala Omar waxam lay la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ñi da ngeen roy ci ñaar ñi sama gannaaw mooy Abu Bakar ak Omar waxaat it ne bu ngeen toppee Abu Bakar ak Omar buñ toppee Abu ak Omar danañ jub kon lu Abu Bakar ak Omar wax rek lay la ku ñoom ñaar lu mu wax. du lay loolu am nañu ko wax Ibn Usaymin moom daf ne moom lim gis mooy waxi saxaaba bu fekkee saxaaba bi ci borom xam-xami saxaaba yi la bokk kooku waxam lay la bu fekkee bokkut ci borom xam-xami lam wax du lay ndax am na saxaaba yi ñoo xam ne ñoo ñëw si yoon bi sallallahu alayhi wasallam di jël lay àtte sharia waaye bokkuñ ci borom xam-xam yi ñu ràññee si saxaaba yi kooku waxam du lay waaye bu dee borom xam-xam la si saxaaba yi waxam lay la wax jooju nag moo gën a digg doomu ci mboolem wax yi eh, te ibnu usaymin nee na mooy li gën a lëng mooy waxu saxaaba bu fekkee saxaaba yi borom xam-xam la loolu ak lay la loolu la ci borom xam-xam yi wax eh, amma taabii lam wax moom maqton lañ koy tuddee taabii mooy koo xamee du saxaaba kooku maanaam képp ku dul saxaaba rek moo xam taabii ne wala taabii taabii na ni ki wax imam malik ak yooyu waxi Shaafi yooyu yëpp maqton lañ koy tuddee dégg nga taabi bu lii ci sunna la bokk taabi bu ne lii ci la bokk ndax loolu dana yore atteeb marfon wara a déet borom xam-xami xadis yi nañ ci am ñu ne taabi bu ne lii ci sunna la bokk xadis boobu mawquuf lañ koy tuddee ndax dañuy jàpp ne taabi bu ne lii sunna la sunnaay saxaaba yi la ci namu comme ni nga xam ne saxaaba bu ne lii sunna la sunnaay yonent bi la ci namu waaye kenn du ko tuddee marfon ndax taabi fekkeewut jamono yonent bi sallallahu alayhi wa kon bu ne lii sunna la rek sunnaay saxaaba la ci namm am ñenn ci borom xam-xam ne taabi bu ne lii sunna la loolu marfon la waaye dañ naan mursal munqati la maanaam ab saxaaba dagg na ci maanaam taabi boobu si saxaaba la ko jëlee ko jëlee ko si yonent bi mu ne lii sunna la maanaam lii sunnaa yonent la waaye tuddul saxaaba boobu kon boobu at boobu mursal lay toon munqati ndax ab saxaaba dagg na ca waaye teewul rek marfon lañ koy jàppee marfon boo xam ni wérut ndax mm, dégg nga am na ku ci dagg ku ci dagg mën naa nekk saxaaba mën naa nekk taabi ndax taabi mën naa jëlee si taabi mën naa jëlee si saxaaba moo tax euh, ala kulli xaalin hadis boobu moom dafay lott saxaaba bu ne lii sunna la boo ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ koy yëgee lu lott doon ndax sanad bi jokkuwut foo am ku ca dagg ndax taabi yi fekkewul yonent sallallahu alayhi wasallam ba mën a jëlee ci moom ah boo ko defee marfu moom dafay lot boo ko defee mawquuf nag ne saxaabi yi bu ne taabi bu ne lii sunna kon ci saxaaba la ko jëlee su boobaa moom dana wér bu fekkee sanad bi yëpp amul benn problème boobaa dana wér ndax taabi mën naa jëlee saxaaba ndax gis na saxaaba nga delluwaat ci la ñu ci saxaaba waxu saxaaba lay la wala du lay ñii ne lay bu dee Abu Mm, lay la bu dul ñoom du lay ñu ne ab muy Aboubacar muy Omar ak ci am du lay ndax saxaab yi day juum day kii lay wax ji ca gën a lëng nag ci waxu Ibnu Utaymin mooy bu dee borom xam-xam la ci borom xam-xamu saxaaba yi waxam lay la bu dul moom waxam du lay waaye nag ci sarta bu mu nekk koo xam ne dafay jëlee ci banu Israël dañu wax ne waxam lay la it tegoon nañ ci ay sarta <coughs> dégg nga sarta yi mooy mm, saxaab yi na nekk ci borom xam-xam yi. bu mu la wax waxam bu mu wuteeg taxi waxam bu mu wuteeg beneen saxaaba kooku daal su fekkee moo wax li gën a wér mooy waxam lay la dégg nga waaye bu mu bokk ci saxaaba yi nga xam ne dañuy jëlee ci waa banu Israël ci yahudi bu fekkee saxaaba bi wax nekkul borom xam-xam ci borom xam-xam yi saxaaba yi waxam du lay bu fekkee ci borom xam-xam ne waaye wute naag teg ci xadis wala teg ci alquran teg ci ba la jël bu fekkee si borom xam-xamu saxaaba yi la bokk wutee wut ak texte waaye dafa wuteeg beneen saxaaba dañu xool ñaari saxaaba yooyu ku ci waxam gën a lëng kuñ ci gën a wóolu dañu jël waxam dégg nga euh, kon noonu euh, lañ koy defee dégg nga waaye <clears throat> balaa ñuy continuer ci waxu saxaaba ñu leeralaalit ne lépp loo xam ne dañ ko doon def ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom marfu lay doon xukman ni ko asma bintu abubakar daan na wax ne daan nañ rey fas ci medina lekk ko rey nañ fas ci medina lekk ko dégg nga waxut ne yonentu xam na ko wala xamut ko dégg nga hmm? daan nañ rey fas ci medina lekk ko waxul yonentu xam na ko wala xamu ko boo waxoon ne yonentu xam na ko moom loolu marfon bu leer nañ la ndax la yonentu xam rek kon nangu na ko marfon la ba nga xamee ne waxul ne yonentu xam na ko mu xamu ko loolu marfon xukkuman la dégg nga na loolu marfon xukkuman la maanaam saxaaba boo xam daan nañ def nangam fi ahdi nabi loolu borom xam-xam nañ ko boole ci marfon xukkuman bu tuddee jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amaa nag bu tuddul jamono yonent bi bu tudd aadi nabi du marfu xukuma ndax bu tudd aadi nabi xel dafay dem ne lim tudd aadi nabi est ce que nekkul kon yonantu daf koo xam waaye bu ne daan lañ def nangam rek te tudd aadi nabi jamono yonantu bi gën a lëng mooy loolu mooy yonantu xamu ko waaye nag lay la loolu moo nañ ne la kon bu tuddee aadi nabi jamono yonantu bi dañ koy dem marfu xukuman bu ne daan lañ def nangam rek ki jaabir wax ji wax ne daan nañ desal alquran nañ wàcc. waxut fi aadil bi dégg nga alquran a ngi wàcc kon moom waxam lañ cee déggee mooy yonentu xamu ko waaye yàlla xam na ko kon loolu lay la waaye duñ ko laaf ci yonent bi kii nag bu ne aadil bi wax ji kon dafa mel ni yonentu la ko bëgg a laaf ci jamono yonentu su boobaa loolu marfu okkuman la dégg nga loolu marfu okkuman euh, la ànd ne euh, am na ci borom xam-xam ñu ne xadis bi lii du marfon xukuman mooy loo xam ne saxaaba def ne dégg nga daan nañ def ci jamono yonent bi du marfon xukuman waaye mën nañ koo layee ndax xam ngi ko yàlla xam noppi ci dégg nga du marfon xukuman ndax waxul ne yonentu xam na waaye nag mën nañ koo layee ndax xam gi ko yàlla xam noppi bokk na it ci marfon xukuman saxaabi yi ne maanaam ñu ne saxaabi wax na ci nangam riwaaya tan ci solo rek xamal ne ci yonentu lañ bëgg maanaam buñ ne hadis bi jëlee nañ ko ci Abu Hurayra te riwaaye tan ku def nangam ak nangam nangam loolu marfu xukuman la ndax saxaaba bu waxee riwaaye tan rek te waxul ne riwaaye tan an nabi ko ci yonent bi dañuy jàpp na ci yonent lu ko jëlee ndax saxaaba yi li ëpp ci yonent lañ laan jëlee moo tax ñu def ko marfu xukuman taabi bu ne jëlee na maanaam ni ki xan abu hurayrata yarfa'u wala xan abu hurayrata rafa'u yëkkati na ko wala saar yu demee noonu loolu marfon xukuman la dina leerlu na ko jëlee ci yonent bu ne rafa'u rek la yarfa'u dañuy jàpp ne wax jooj <coughs> ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi jàpp ne ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko ci la ko jëlee kon lépp luñ laaf ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo di marfu moo xam waxam la wala jëfam la marfu nag am na marfu sarixan marfu gu leer nañ ñi wala marfu xukman marfu goo xam ni dafa yore atteb marfu marfu sarix mooy ne ki wax nangam wala mu jëf nangam wala ñu def ci kanamam nangam loolu marfu sarix la <clears throat> marfu xukman mooy waxi saaba boo xam ne du jàmbaar di sos ci diine te jëlee wut ci waa banu israila wax loo xam ne xalaat amut ci place loolu marfon xukuman lañ koy tuddee ndax ku ne xam na ne saxaaba du wax ci xalaatam te lii xel amut ci place dégg nga nga eh, <coughs> moo tax yenn saxaaba yi boo déggee ñu wax nangam te loolu ñu wax xam nga ne ci yonent rek lañ ko mën a jëlee loolu dafa yore atteb marfon dégg nga am na sax ci borom xam-xam yi ñu ne taabiin yi dégg nga bu defee lu mel noonu dégg nga euh, maanaam wax loo xam ne ni wala mu jëf loo xam ne xel amul ci place loolu marfon la waaye li wér mooy taabiin bu defee lu mel noonu dégg nga <coughs> mawquuf lañ koy tuddee mooy loo xam ne ni xëy na daf ko jëlee ci saxaaba bi dégg nga waaye bu fekkee ci saxaaba la ko jëlee marfu xukuman lay doon ndax saxaaba bi loolu mën koo jëlee lu ma ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon wax jëm xam ni taabi moo ko wax wala moom moo ko jëf dañu jàpp ne taxaw bi taabi bi ci yonent sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee waaye bu dee loo xam ne xel amul ci place dañu jàpp ne loolu ci yonent bi euh, euh, taabi bi si saxaaba la ko jëlee waaye bu dee xel amul ci place dañu jàpp ne saxaaba bi ci yonent la ko jëlee dégg nga <clears throat> hmm. bu fekkee nag taabi dafa wax loo xam ne xel am na ci place dañuy jàpp ne saxaaba rek la ko jëlee waaye wax jooju duñ ko yéegee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam taabi bu waxee loo xam ne xel amul ci dañuy jàpp ne loolu marfon la yegg na ba ci yonent bi waaye nag waaye nag waaye nag duñ ko mën a layee ndax sanad bi dafa dagg mën naa mu jëlee ko si beneen taabi kooku jëlee ko saxaaba ko jëlee ko ci yonent bi comme que tudd leen xamul ñoo ñoo ñaan rek dafa dagg moo tax xadis boobu daif la taa bii nag bu waxee loo xam ne nii xel am na ci place mm, dañuy jàpp ne si ab saxaaba rek la ko la ko jëlee te ñoom gis nañ saxaaba yi su boobaa dañ ko mën a nangu dégg eh, loolu moo di eh, marfu ak mawquuf wax nag bu fekkee ci taabi la xem ni ki ku gis saxaaba comme Saïd ibn Musayyab Qatada Yazid bun Abi Ziyad Layth bun Abi Sulaym ak Zuhri ak ñu mel ni ñoom lépp bépp wax joo xam ne seen waxi bopp la ñoom taabiin yi loolu maqton lañ koy lañ koy tuddee lépp loo xam ne taabiin ko wax rek loolu maqton lañ koy tuddee ci ñëw la yam am na ci borom xam-xam ñu defar téere yoo xam ne waxi taabiin yi lañ ci defar rek lañ ci def ak saar yu yu demee noonu am ñoo xam ne ni indi nañ ci waxi saxaaba yi kon am na téere yoo xam ne ni comme ni amee téere xadis am na téere yoo xam ne ni yemut ci xadis yi rek waaye dana indiwaale waxi saxaaba yi ak waxi e, taabiyeen yi ak yu demee noonu dégg nga léegi-léegi seen wax am wute léegi-léegi wax yi am yu dëppoo e, kon daal ci gàttal wax ji daal mooy lépp luñ laaf ci yonent bi marfon la luñ laaf ci saaba mawquuf la luñ laaf ci bi maqton lañ koy tuddee dégg nga lépp loo xam ne dégg na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa wax ko euh, kooku lay la lépp loo xam ne saxaaba ko wax kooku am na wutee euh, ndax lay la a déedéet waaye daal bu fekkee saxaaba boobu ci borom xam-xam yi la bokk wutee wut ak nassu nasu wutee wut ak beneen saxaaba daawul jël ci banu Israel waxam jooju mën nañ ko laye Eh, dégg nga bu saxaaba yi wutee nag ñu tànn ka ci gën a lëng am na ñoo dañ tànn eh, waxi Aboubacar wala Omar wala kenn ci xolofaawu yi bu ñu wutee waxi ñooñu wala koo xam ni ñooñu ñooñu la àndal ci wax ja kooku la ñuy nangu waxam dégg nga eh, borom xam-xam yi nag ñu gisul benn waxi taabi yi daan benn waxu saxaaba gisuñu ñu waxu ci masala daañ dem daanañ dem jël ci taabiin yi ndax ñoom ñooy taalibi saxaaba yi dégg nga buñ gisul waxu saxaaba waxu taabi gisuñ ko ñu góorgóorlu seen xiraatu bopp andi la leen seen xam-xam may taabi yi nag mm, moom it waxam duñ mën a doogu ne lay la ndax bu fekkee waxi boppam la mën naa dëppoog sawaab mën naa ñàkk dëppoog sawaab ndax dafay def ijtihaad rek يصيب ويخطئ ليلك مجي وليلك مجوم إن أريد إلى الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالعلم بل